waaw feebar bi moom tailleur yi laal na leen bu baax a baax a baax a baax. wàccaayu korite gi wute nag yi fi daan am ci tailleur yi nga xam ne jamono bi daan na fekk ñaw yi bari lool ci ñoom fi mu toll nii nag ñoom nee ñu jamono bi métti na lool ci ñoom ndax ñaw yi bariwul yenn ñaw yi nga xam ne sax ñu ngi koy am ay ñawi gone lay doon. non ren moom gisaguñu suñu bopp moom gisaguñu suñu bopp baax a baax non ki laata nag benn benn la ñuy ñëw nag. ku seel nag nam daan demee bu njëkk ak léegi wuute na ndax liy wuute mooy ñëw yi nam daan ñëwee ak léegi euh, am na différence daal fi ne nii nag euh, ñaw yi nam daan ñëwee bëreetut ndax fi mu toll nii ay ñawi xale donc moo fi moo fi nekk waaw mooy ñëw waaw mag ñi waaw benn benn rek xale xale yi daal ñoo ci ëpp lu ñuy ñëw ndax ñoom daanaka xamuñu la xew ci ci réew mi daal waaw boo xoolee liggéey bi ni mel ni nga xam ne am na changement waa heure bi daan fekk ñaw bari fi ñu daan guddee di ko ñëwee lépp tey booy xool feneen nii yëpp ay ñaw xale rek moo fi nekk. nam doon doxe bu njëkk daal ren ji moom vraiment doxewu ko moom waa gilaay ñu ngi ñëw ndànk ndànk rek mais waa ñu ngi ñëw ndànk ndànk waaw. ñi nga xam ne ñoo di tailleur yi waxtu wi daan na fekk ñuy fanaane ñaw ba bët set loolee nag ren ji amul luñ ko ngir ñaar. benn muy couvre-feu bi nga xam ne moo am ci réew mi ñaareel bi muy client yoo xamante nii bëri wuñ bëriwaay boo xam ne jaral na la ngay fanaan ci place bi. non defatuñu ko nañ daan fanaane moo toog ñaw am envie toog ñëw dëgg-dëgg moom ren moom du yàlla moom defaguñu ko moom. de gisuñu suñu bopp de gisuñu suñu bopp ndax euh, instant jamono ji daan na fekk sax ñuy fanaan daan na fekk ñuy fanaan instant bi fi mu toll nii 18 euh, heures lañuy la ñuy wàcc. mais fi ñu toll nii nag euh, dañoo jëloon benn programme boo xam te ni moom lañ doon liggéeyee maanaam dañoo bëggoon bu fekkee ne ay 6 heures du matin ñu xëy ko commencé ko xëy euh, di wàcc ay 10 ay 18 yi wala 19 heures daal. heure couvre-feu bi moo tax ndax bu couvre-feu bi moo tax daal moo tax fi mu doon nii heure boobu daal la mën a wàcc. waaw changé na lu bare bëri changé na moom lu bëri bëri ndaxte heure bi ngay tey bu la dagale programme jox la ko bari nga ko commencé jant bi soo nga ñibbi daanaka du àgg nag. dëgg yàlla moom yéeme na lool doy na waar lool waaye ñaan yàlla daal moom affaire bi teel fee jóge ba kenn wu ne dellu si yitte yi xëy na nag bu changé lépp dina baax incha allah. man naa la bu wàcc jotee ñëpp seen kër la ñuy ndogoo ji mais heure bii kenn mësul xalaat sax ndogoo sa kër waaw presque 15 jours après. en ah, même temps bi mu demee bu des ay 12 jours yooyu dañ doon dem bo 23 heures wala ay minuit yooyu noonu yaa ma gën xam mais saa yi 19 heures pour nga wàcc wala vidéo ñu wàcc jamono bi nag nga xam ne ñu ngi waajal korite gi ñu bëree bëri yóbbuwuñ seeni ñaw ci tailleur yi ndax méttitu jamono loolee bàyyeekoo ci li nga xam ne moo di jàngoroy coronavirus bi ak mesure yi nga xam ne moom la ci kilifa yi jël mu nekk jamono bu metti lool ci askan wi rawatina tailleur yi nga xam ne jamono bi daan na fekk mbir mi di dox bu baax a baax